abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa yu wér te wóor ci réew mi li nga xam ni mooy li am solo mooy li conseil constitutionnel di dogal sa biir wax léegi da nga ni pour nga nekk candidat il faut que nga am cinq ans bañ am am 75 ans ba pare aussi il faut que nga euh, ñu mën la fal wax nga ci ne il faut que aussi nga bañ a def ñaari mandat absolument mais est-ce que jàppaloo ni. président de la république am na droit yóbbu candidature am ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel xool ndax euh, respecté na charte yi wala respecté wul charte yi ndax jàpp nga ni loolu lu ñu war a fu mu mën war a mën a egg la bu fekkee am na yéene bi déposer candidature am su fekkente ne amul 75 ans. xam nga pour man tontu bi yomb mhm. am nga plus de 75 ans xam nga xel xataalu xalaatul sax ngay jël këyit di ko jébbal conseil constitutionnel. Mhm. ans.